Euh, déglu lañu. Mhm. te yaakaar naa dinañu wax lu ñu mën a dégg. très bien alors euh, ci wetam am na ñu fi euh, monsieur le maire Cheikh Gueye moom itam di maire bu Dieuppeul Derklé waaye itam bokk ci taxawu Sénégal ñu di ko gërëm moom itam ci disponibilité am ak ñëwam fii ci Sen TV lu njëkk waaye itam ci émission 90 minutes chrono monsieur le maire nuyu nañu la am mbégte dalal la. fay di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa seqal waxtaan wi. di ñaan yàlla waxtaan wi yàlla na jur njëriñ njëriñ loo xam ni dina jëriñ réew mi jëriñ ñi dëkk réew mi ak même ñi ci bitim réew très bien euh, duñ ci wet benn yoon ndax diñu ci àndal également Moustapha euh, Meng nekkoon fii euh, maire bu Kër Massar waaye itam di haut conseil des collectivités territoriales bokk ci benn Bokk Yaakaar monsieur le maire wala monsieur le conseiller <laughs> ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ci sunu plateau. nga xam ne ñoom laa seqal laaj ko waxtaan bi waxtaan boo xam tamit ñi nekk fii ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew mi ñëpp très bien euh, ñu amaat fii euh, itam sunu càmmoñ ba léegi président Hamidou cow moom nag moom moo jiite euh, MR MPR en marche pour la renaissance ñu ngi lay nuyu bu baax a baax am mbégte dalal la Sen TV ak 90 minutes chrono. di nuyu tamit ñu ma bokkal plateau bi mooy monsieur Mbodj. di nuyu tamit euh, monsieur le maire monsieur Guèye ak di nuyu conseiller Mbodj euh, di rafetlu invitation bi. di nuyu tamit ñëpp di nu seetaan si seen télé yi. très bien alors waxtaan bi euh, dañu koy tàmbale ci wàllug politique doyen nga jàngatul ñu rek li nga xam ne moo di actualité politique bi parce que à quelques mois de l' élection présidentielle. on note quand même euh, des tournées économiques yu président de la République Tamba moo ci jiitu euh, Thiès démb euh, itam ci côté opposition bi on a vu de des mobilisations ak i tournées également est-ce que mën nañu jàpp ne kon campagne bi door na laataa sax ñuy tàbbi ci 2024 campagne bi dooragul mhm. bu dee si yoon mhm. ndax code électoral dafa tëral nii campagne bi ñaar fukki fan balaa ñuy joŋante mooy période campagne dafa naa ñun ñooy xaw a jaxase tuuti di wax campagne ak activité politique parce que bu fekkee ni euh, askan bi moo la soxal euh, dafa naa dana war a baax ngay déglu di nemmeeku xam naka loo ko xalifa di waxee ñii dañuy tibb tànk ñii di mbott mottali yéene ñii di loolu daal dafa nekk loo xam ne ni lu jaadu la njaboot boo ko amee ñii di nemmeeku <laughs> njaboot boo ko amee te ñu faale la yëg la war na yow si sa bopp boo toogee tuuti nga seeti war na yow si sa bopp boo toogee tuuti nga woo naka ngeen toogee parce que njaboot la Sénégal gi ñun njaboot la ñu mm. muy président muy xalifa muy caw muy monsieur Mbengue ñun ñëpp benn njaboot lañu. Euh, li ñu seq ñoo ko seq mënul génn si ñun suñu biir la ñu ne te mënuñu génn ñu nekk fii ñu ngi suñu biir bu ñu euh, nekk si biti ñoo ñu mbottali. kon euh, waxtaan ak ñoom. jàmmal seet ñoom seet yëglu ak tamit wax leen xëy na am na fu ñu jëm. bu boobaa bu ma fàtte. mais est-ce que c'est pas calculé doyen ci bu ñu xamee ne euh, quelques weer rek des ñu dem ci élection présidentielle ci ndaje yooyu ñuy dem bu ci mel ni président de la république da ngay gis ne euh, mobilisation bi ak euh, kañ beeg ak fi ñu bëgg a yóbbu peut-être président dañ koy fësal mu leer naññi mobilisation également xalifa ak yeneen candidature yu déclaré wu dañuy gis ne seen ay mobilisation dafay xencu wala dafay xeltu. 2024 est-ce que mun na mënuñu wax ne euh, ci campagne boog bu prématuré la nekkuñu ci campagne bu prématuré dañu nekk c'est activité politique donc c'est normal c'est très normal 2016 mm-hmm. juillet Macky defoon na ko juin juillet les euh, conseils des ministres décentralisés euh, 2023 naam dafa fekk ni xëy na dafay tomber ñu ni ñu ngi séentu waaye séentu moom si la ñu nekk képp kuy dund dafay séentu ku séentuwul du gis parce que lu nekk sa kanam nga gis ko ba pare te nga eh, doxal ëllëg di seet askan bi di seet réew mi di leen wut am foo leen jëme booy jëme ay nit dafay nekk foo xamee ni weesu na tey bu boobaa nag da ngay dem ngeen waxtaane ko ni leen bon président ni day def tournée eh, économique am na moi je me souviens en 78 Senghor avait fait tourner les régions périphériques. Mhm. bon mais bu ñu nee tourner ñu ngi def politique. bu Khalifa demee Ndar ñu ngi dafay politique. Mhm. bu Thiaw doxee ànd ak kii gardam ñu ni dafay politique. Mhm. bu Mbengue doxee ñu ni dafay politique mais politique si la ñu ne. d'accord. c'est politique c'est li ñu dëkk. Mhm. politique moom la ñuy dund. Mhm. ndax politique mooy defar réew. d'accord mi ngook alors euh, doyen Cheikh Gueye monsieur le maire ñu ñëw ci yow euh, gis nañu ne euh, le président de la République est en tournée économique waaye kuje gi woyowuñu ko noonu wala gisewuñu ko noonu dañu jàpp ni ci tournée politique la nekk ndax xëy na am na lu ñuy waajal au moment où itam leader yu ci mel ni xalifa ñoom it ngi mobiliser est-ce que mën nañu kon empêcher le président de la République def ce qu'on tournée politique. waaw xam nga président defe naa ni tournée économique lañu wax. Mhm. te dama jàpp ni laxas na ci politique. Mhm. ma jàpp ni tournée politique tàggatoo la. ndax amoon na ay jamono mu doon def tournée yi. Mhm. ni woon askan wi maa ngi sàkku ngeen woteel ma. waaye bu ngeen ma woteelee. bii mooy sama ñaareelu mandat fa lay yem. ñu dëgmal ay élection ma jàpp ni bon dafay delluwaat sant leen gërëm leen ne leen dama leen ñaanoon ngeen votel ma deuxième mandat bi defar ngeen ma ko. léegi nag man comme que bokkatuma ci mbir mi maa ngi leen di sant di leen gërëm mën nañu jàngee tournée économique politique. yu président bi mën nañu ko jàngate noonu. ci yéen ni ngeen ko jàppee. man ci noonu laa ko jàppee. Mhm. tournée tàggatoo la. Mhm. boo nee Khalifa moom tournée politique defu ko c'est-à-dire ni ko doyen parti Mbodj waxee activité politique la mm. c'est la vie normale d'une organisation politique dem nemmeeku askan wi jokkoo ak askan wi waxtaan ak askan wi ci askan wi jële ci askan wi mm-hmm. loolu la Khalifa Sall mi nga xam ni mooy njiitu taxawu Sénégal mm-hmm. defoon ci ay bis yi ñu génn ci biir réew mi mm-hmm. mais def ko aussi bitim réew def nañu département yu bëri et kii day def tournée pour tàggatoo kii day def tournée pour ñu jox ko raay réew mi ndax dafa am yéene ci réew mi nit ñi am moom ci moom yéene ni ko yéene bi ñu am yaa ko mën a matal. looloo tax tournée yi nga activité politique yi nga xam ne Khalifa Sall mu ngi koy def. ñu tudde ko mottali yéene. saa ñu demee ci gox def nañ ko département Rufisque. def ko département Bambey def ko département Mbacké la ñuy jële ci askan wi ay xalaat yu am solo mbébétu askan wi bëgg-bëgg askan wi looloo tax bu ma gisee ñenn ñi naan bu ñu nekkee njiitu réew wala bu ñu la lan ngay yéene réew mi mhm. ñu bind téere Mohamed dafa yomb mhm. yow man ak sama morom mën nañ tëju ci benn pantare bind li ñu ak yéene réew mi mhm. waaye loolu defe naa du mooy programme ña ko def ñëpp bañ leen fale def nañu lu wuuteeg la ñu digoon moo tax ñu ni ñun dañuy def dans la rupture lan mooy rupture dañuy dem ci askan wi saafantoog askan bi taataan ci askan bi jële ci askan bi bu ñu fa jógee loolu ñu jàngee ci askan bi muy mbébét muy yéene muy bëgg-bëgg ñu tënk ko mu nekk programme bi nga xam ni bu yàlla defee Khalifa Sall doon président de la République en 2024 mu doxal programme bi très bien alors Cheikh euh, seen mbëbët la wala seen gis-gis ci ne le président de la République dafa nekk di def tournée tàggatoo moo di day ñi ko jege euh, waxuñu loolu ndax fu mu dem ak lu ñu ko plébiscité dañuy wax ne moom la ñu jiital mooy seen plan à ba Z ci élection yu ñu jëm euh, ne mooy seen candidat est-ce que loolu itam du doon xëy na jafe-jafe ci kujje gi ñu ci mel ni yéen non man mënul nekk ci man jafe-jafe ndax ki nga xam ne tey jii mooy président de la république mm-hmm. am naa jaar-jaar ak moom mm-hmm. moom aussi am na jaar-jaar ci wàllu politique mm-hmm. moo tax bu may gis yenn pratique yi dama naan kii du président ma xamoon démb ak bërki démb ndax nit la ngay def war nga ci jële jàngat ànd naa ak moom jamonoy opposition ñu distribuer ay tract ànd naa ak moom ci bi ñuy campagne pour mu nekk président la république di bañ troisième mandat Abdoulaye Wade ànd naa ak moom ci ay kuréel yu bari ma jàpp nit nitu kàddu la ndax lam noonu wax démb ak bërki démb mi ngi ci suñu nopp yi ak suñu xel yi ba donc li ma xam ci nit ki jàpp naa ni dana sàmm kàddam jàpp naa ni dana am kersa di janoog askan wi même buñ ko ci bëmaxee mun leen déedéet gor ca kàddu ga nit du na mu ki na mu waxee rek la ak na mu jëfe ba tax na lii taal réew yu bari te mooy jëfin yoo xam ni askan du ko nangu gëw ma ni président de la république dina dugg ci loolu du ñàkk nag ay gaawam yu ko ci bëmax yow la yow la mm. waaye moom yàlla na ko yàlla bàyyi ak sagoom ak xelam na ma ko xamoon dem ak bërki dem mu am dal ak teyaayu xel xam ni yoon mayu ko askan yu mayu ko dara mayu ko ndax danaa dégg sax ñuy wax ba xaabaabal naan quinquennat ak yooyu boo xoolee constitution bi amul fenn fu ñu fi bind quinquennat on parle de mandat et li ma waxoon dem na bay waat sax ne bu ngeen ma falee jeex na moom moo ko wax damay verrouiller constitution bi mm. ba coow li dootu fi amati donc ci man loolu lay sukkandiku bu may gis leen. très bien alors Moustapha euh, bokk Benno Bokk Yaakaar dégg nga monsieur le maire Cheikh Gueye alors aujourd'hui même si le président de la République bu waxulee ne candidat la te dégguñu ne candidat la ci 2024 quoi qu'on puisse dire moom dégguñu ko waaye yéen waa Benno ak ñi ko wër di ko jàppale euh, ñoom ñoo ko bëgg a samp ci 2024 alors ci au moment où ñu bëri jàpp ne warul mën a bokk alors njàngat boobu ngay def ak surtout tournée bi nga xam ne tey euh, firndal na ko démb ñu feddaliwaat boobu lekk euh, bëgg-bëgg ci moom pour mu présenter wu alors est-ce que yéen a ngi bàyyi xel que ne 2024 am na leneen lu leen di xaar muy askan wi euh, l'histoire politique du Sénégal ak surtout conseil constitutionnel waaw jërëjëf Mouhamed daa wax ci tournée économique bu président de la République mm-hmm. damay wax ne tournée bi moom xam nga kenn ko nekk ak ni nga koy gisee ñoom nañ koy gisee e, comme ni ko Cheikh waxee mën na ko gisee tournée tàggatoo mën na ko gisee keneen mën na ko gisee tournée leneen mais ñun li ñuy gis rek mooy président de la république moom dañ ko fal tournée mënul bokk ak tournée keneen ki nga xam ne kenn falu ko moom la sénégalais yi fal am yaakaar ci moom mu nekk ci réew bi nag di liggéey donc su toogee ba mu yàgg ne damay def tournée économique loolu dama gis ne lu normal la lu jaadu la lu jaar yoon la parce que nag war na mën a jékki-jékki dem ci benn région par exemple tey mi ngi cees su demee mën a nemmeeku waa Thiès mais mën a nemmeeku tamit liggéey bi nga xam ne def na ko foofu mu yegg wala liggéey ba nga xam ne maa ngi ko fay def te yeggagul wala bokk daje ak waa Thiès tamit déglu waa Thiès moom mi nga xam ne tey moo war a liggéeyal waa Thiès donc yaakaar naa ne loolu mooy tournée bi mu xam ne moom lay def 448 milliards euh, xëy na balaa ñuy euh, yegg ci ay inauguration ak dolli leneen daañu def bilan bi waaw non dinañ def bilan bi parce que Thiès nag boo xoolee président def na fa lu bari ah. Mhm. ndaxte boo xoolee tey boo jàppee boo xoolee éno bu Thiès bi. Mhm. tey defar nañ ko na. Mhm. non pas bilan bi mu mais bilan koppar gi fan lañ ko ah, dugal ak luñ ko def waaw. loolu yëpp ci koppar bi lay. d'accord parce que euh, nekkul loo xam ne dañ koy defee leneen. tout à fait donc dama la bëgg a xamal ne Thiès li fa président def dafa bëri. parce que am na ay centre euh, euh, centre de l'enseignement supérieur professionnel bi. mi ngi foofu. boo xoolee pare na KMS 3 bi boo xoolee eh, kii bu sance bu am bu am solo la boo xam ne mi ngi nekk cees cees boo xoolee Promoville ba ma nga fa boo xoolee même centrale énergétique yi eh, ñu ngi ñu ngi cees mhm. boo xoolee tamit tey jii rek boo xoolee ñu ngi lay wax ne président mi ngi dem Euh, fële ca ca Popenguine mhm. pour seeti sanctuaire bi nga xam ne ñu ngi koy defar foofu mhm. mu bokkoon ci projet bi nga xam ne mooy projet pour la modernisation des sites religieuses nga xam ne waroon nañ defar sept diocèses boobu mu bokk ci te mu war a jël après quatre-vingt-dix mille places mhm. te xam nga ne suñ mbokk yi chaque jour dañuy dem Popenguine donc ak yeneen projet sax yu bokkul ak ak yooyu mais xam nga Thiès dafa nekk dëkk bu am solo d'accord boo xoolee ci ci Sénégal parce que tey boo xoolee Euh, nga xool autoroute à péage bi mais nga xool tamit l'aéroport nga xam ne tey nekk na foofu si Thiès nga xam ne Thiès dafa nekk est-ce que loolu rek doy na ci mu euh, bëgg ci sukkandiku reconquérir xëy na euh, li nga xam ne moom la bëgg euh, di réew mi atum 2024 même bu dee ci wet gi kuje gi nee nañ ko déet waaw xam nga reconquérir moom yow mën nga wax reconquérir mais dama ñun dañuy yem rek ci tournée mhm. parce que tamit xam président de la république aussi buy def tournée économique bi dem fenn ci benn région aussi mhm. ñi nga xam ne dañ fa nekk tamit di ay responsable aussi danañu jóg dem teeru seen njiit seen njiitu réew mais teeru tamit aussi seen njiitu parti loolu dama gis ne lu jaadu la lu normal la lu ñu war a nangu la leneen li si des na xëy na Cheikh brossé na ko mooy affaire ñii di wax deuxième quinquennat ñii di wax euh, deuxième mandat et cetera donc loolu dama yaakaar ne wax ji moom ci Sénégal bari na werante bi ci rajo yi partout mhm. mais dama yaakaar rek dañu war a euh, xaar ba mu ba mu ba boobu ba mu jot su jotee yaakaar naa ne ba président taxaw ne moom kandidaa la su boobaa tamit ñi nga xam ne gisee wuñ ko noonu ne moom warul nekk candidat su boobaa tamit dëkk bi yaakaar naa am na yoon su boobaa tamit yoon lam ca war a décider mu décider ko. mais mooy seen candidat. Oh, ñun mooy man mooy sama candidat te yaakaar naa ne bëri naa ci ay moroom yoo xam ne tey man président Macky Sall laa bëgg mu nekk suñu candidat. Mhm. waaw ndax nag man ni ma du ma jànguma justice. Mhm. mais tamit ni ko seex waxee ci constitution bi man ak moom bokkuñu ci gis-gis. mais ndax parti bi APR dafa dafa ñàkk beneen candidat bu dul président. non du question de est-ce que est-ce que plan A ba Z mooy. Euh, exclu waaw parce parce que ku nekk ak li ngay jàpp. xam man li may jàpp. si ja du ma jànguma justice jànguma justice. mais dama ne ja du ma juriste du ma. Mhm. mais li ma jàpp man ci li may liir dama jàpp ne euh, loi mundu rétroactive. Mhm. man dama jàpp ne président sept ans yële mu falu woon ba ñu woote référendum bi sept ans yooyu bokkul ci li ñuy li ñu war a compter. cinq ans la ñu wax yoo xam ne tey moom la ñu indi mandat bi léegi ba pare na kenn mënatul def ñaari mandat yu tegaloo kon man ci cinq ans boobu mu def. bi ñu defee eh, bi ñu votewee référendum bi man loolu laa mën a jàpp ne mooy premier mandat beneen cinq ans bi ko desee nag mooy cinq ans bi nga xam ne mooy deux mille vingt 2024 jëm 2029 hmm. te loolu ñoom ñi nga xam ne tey par exemple ñu si bëri ci opposition bi gis nañ leen ñu taxaw wax ko Sonko gis nañ mu wax ko gis nañ baat Barthélémy Dias wax ko gis nañ ñeneen ñu bëri wax ko hmm. mais kon kenn ku nekk si sa gis-gis yow si sa xam-xam fa mu toll foofu nga waxee waaye nag ñun ñëpp am nañ loo xam ne nag moo ñuy àtte lu fi nekk loo xam ne bu ëllëgee bu ñu ko tegee su boobaa bu dee ne euh, atte nañu lu ñu atte ñu xam ne loolu la ñëpp ñu woy ci loolu alors euh, président Aminou Thiaw euh, l' espace politique dañu gis ne li ko animé bokk na ci euh, troisième candidature bi ñoom benn porté pour le président de la république waaye itam ci wet gi ku jigi ne du ci dal parce que amul lenn lu ko ko mën a may mu fexe daal ba jur ab atmosphère wala fexe ba espace politique bi xaw a xaw a am nu mu mel euh, mu mel ni loolu aussi bëgg nañ ci xam mm, xalaatuk ak gis-gisuk MPR ci fi réew mi toll ci wàllu politique mu <coughs> euh, njëkk a commencé rek mooy wax si lu xew si réew mi mooy dégg naa ku nekk wax na mais foog naa ay jeu de mots la parce que pour man campagne wala sénégalais yi campagne mooy lan ñu nga déclarer sa candidature commencé dem wuti électorat bi. Hmm. mën na officiellement du campagne. Hmm. mais officieusement ñëppoo ngi campagne. Hmm. soo gisee opposition moo ngi koy def parti au pouvoir moo ngi def de façon déguisée parce que tey soo leen demee di woote ay meeting di mobiliser nit yi di ñëw ngeen di jaay carte ngeen def conseil des ministres décentralisé juste à quelques mois des élections pour man loolu yaa ngi jaay jaayaat sa bopp di jaay sa bilan. te dégg nañu sax la dernière fois bu mu doon wax si discours bi fin d'année bi lu mu jaay mooy programme am la jaay ak réalisation am la jaay. donc ñoom moom moo ngi si mode politique. APR moo ngi si mode politique comme opposition moo ngi si mode tamit euh, politique campagne nu ko nu ko tuddee yëpp pour mën ay jeu de mots la. Mm-hmm. léegi ce qui se passe pour la candidature de Macky pour man comme nu mu ko waxee rek euh, monsieur le maire. war na respecter kàddu woom mais tamit opposition bi nu ma wax war ñu ragal Macky Sall parce que xam nga toog na dix ans réaliser woo yenn affaires yi. du si beneen mandat nga koy réaliser. te foog naa tamit sénégalais doon nañu si Macky Sall parce que dafa am loo xam ne mënoon na yaakaar si moom c'est-à-dire que l'emploi des jeunes hôpital yi yomb accessible. am ay matériel solo noonu ñëpp am ndox am courant mais courant bu ak ndox boo xam ne c'est abordable. dundu sénégalais lambda bi. waaw hmm. lu yëpp gis nañ ko la vie mais lu yëpp da kaa xaw a il est un peu passé à côté même très il est ba hmm. tey moo tax ñëpp doyal ci moom. Hmm. pour man comme wax na. na génn par la grande porte. mais tamit su demee foog naa day am humiliation parce que soo motulee sa doon deuxième tour. waaw est-ce que opposition bi mi ngi ci rôlam ci fexe tenir tête ni ko <laughs> doyen euh, waxee sànq euh, pour tenir tête le président Macky Sall ne ko lii euh, mënu fee am muy muy muy troisième mandat naka nga jàngatee taxawaayu opposition bu Sénégal par rapport ak ak ce qui se passe aujourd'hui muy débat bi soulevé wu ci troisième candidature bu président Macky Sall. non ñun opposition bi peut-être on est en train de dire non au troisième mandat. te mhm. troisième candidature pour man du troisième mandat. oui maanaam candidature bi il sera pas sera euh, pas mais ñun nag suñu biir nañu jaay Sénégalais yi benn programme. te fexe ba programme boobu ñuy jaay Sénégal ñu respecté ko. et c'est ça le plus important parce que ñun wax bi yëpp lan la di xas le parti au pouvoir. Mm. mais ñun tamit nañu wax lu ñu war a def. bis bu nu faloo. jaaree ko ci programme. jaaree ko ci programme seulement problème boobu la Sénégal am ci wàllu ci wàllu paline euh, doyen mi ngi koy wax ñu bëri bind nañ fi ay livre mais bu ñu ñëwee daanaka duñ ko duñ duñ ko jëfee monsieur le maire Cheikh mi ngi koy wax nu muy tànnee bokk na ci nit ki am na programme bu baax am déet électorat Sénégal parce que amoon nañu fi ay ay euh, candidats si si on se rappelle yoo nga xam te ni seen programme kenn mënu koo nattable programme yu am solo la mais dañ leen fi bàyyi fal ñeneen est-ce que Sénégalais bi dina fal la base <laughs> programme ça aussi c'est un problème. Sénégal yi dina def mais première chose mooy lan. Mhm. ñun première erreur bu ñuy def c'est-à-dire qu'on même nit yi élire à chaque fois. Mhm. c'est-à-dire que ñu ñuy tànn. nit yoo xam ne mosuñu créer liggéey. c'est des gens du secteur public. Mhm. dundee ci public bi génnaat bëgg duggaat. te loolu erreur il faut ñu changer profil. parce que dans l'opposition comme dans le parti au pouvoir c'est les mêmes profils. Mm. te dafay baax des nag ñu jël les du privé ñoo xam ne mën na créer emploi ñoo xam ne am na programme bu leer te programme bu gars di wax loolu du programme pour man. ñoo xam ne jot nañ fi def dara jot nañ fi def dara. Mhm. te programme bu fi am ñun esquisse de programme la gars di joxe pour man. Mhm. on va créer des emplois d'accord comment tu vas créer des emplois. Mhm. loolu kenn du ko tontu. ku ñëw rek daa ne créer liggéey deux mille envoie des chiffres comment tu vas le faire déjà tu as un, une population qui est jeune mhm. am na ñu bëri ñoo xam ne ils sont analphabètes léegi ak tous ces problèmes là comment tu vas faire mhm. et ça personne y a répondu gisuma programme bu répondre si loolu exactement ne fii lay jaar mhm. donc mën nañu wax ne programme amagul si opposition et dans le parti au pouvoir ñoom tamit foog naa ne affaire da leen jaaxal xamuñu nu ñuy créer emploi ñoom te ñu teg ci infrastructure suba ngoon. <laughs> d'accord dinañ ñëwaat ci loolu alors euh, doyen Pathé euh, est-ce que nekkul euh, situation bi li ko li tax mu gën a mel ni jax lool surtout bu bu bu politique bi nekkul ne ñu ngi jëm ci deux mille vingt-quatre waaye xamaguñu. kan mooy doon candidat c'est-à-dire mën nañu déclarer nii rek na candidat mais xamuñu kuy bokk bokk même le président de la République aujourd'hui xamuñu ne day bokkam déet est-ce que loolu ci réewum démocratie bu mel ni Sénégal war nañu tàbbi ci loolu alors dafa am <clears throat> ñaari mbir. Mhm. dafa am ñu mën a bokk. ak ñi nga xam ne ba tey jii ñiy wax xamuñu seen ëllëg. Mhm. ñu ngi si guddi. bu bët setagul bu naa ñëpp ñiy wax ni ñoom dina nekk candidat. parce que am na wax ni dina nekk Aminata wax na ko mhm. euh, grand parti wax na Khalifa Sall am nañu te ku gis Macky na muy doxale te ma xam ni li si ñàkk bi la jëm mhm. waaye e, ku nekk dafa xamul sa ëllëg lan la mhm. peut-être que Gakou amul sikki sàkk ak euh, askan wi ak yoon xëy na ami Aminata toure amul sikki sàkk ak yoon mais am na ñoo xam ne ni bu ñu waxee dañ naan ñu dem seeti conseil constitutionnel muy Macky am na ko Karim Wade pare bu waxee dañ xaaral ba sa grâce ñëw ba nga am say droit Khalifa Sall bu waxee tey dañ ko xaaral ma kon tey amuñu candidat am na ay mébét am na ay yéene am na ay taxawaay yu mais candidature amagul. parce que kenn mënagul nekk candidature kenn yoon mayagul la nga nekk candidat. parce que pour nga nekk candidat ni ko ca waxee da ngay def de candidature déposé ñu seen ndax pour nga nekk wala mënoo nekk. kenn déposé wul. man bu ma neexee ni candidat la. présidentiel yow bu la neexee ni candidat la présidentiel. Euh, pour le moment tout le monde. candidat la 17 millions de Sénégalais 17 millions de candidats. bien sûr ku mu neex ni candidat la. kooku wax la. Mhm. mais am na beneen jéego. Mhm. bu ñu war a def voilà xëy na waa appaire bi ni mu waxee. Euh, bu boobaa bu président waxee conseil constitutionnel wax mhm. mais du conseil ñu yoon daal fi mu nekk mooy désigner candidat yoon amagul ku ko mën a nekk parce que dugaguñu si euh, calendrier électoral boo xam ni mun nañu wax ni tey jii dañuy def déclaration suba nga déposer ce dossier. ginnaaw suba conseil constitutionnel euh, conseil électoral bi wax. après conseil constitutionnel validé. Hmm. kon fi mu nag dañuy wax rek. mais seulement liy tiital candidat yi euh, doyen bokk na ci xam nga en 2019. Hmm. Euh, amoon na ku fi waxoon ne cinq personnes képp ñooy dem. ci élection yi boobu xamaguñ sax li xew mais cinq personnes au finish ñoo dem ci élection yi est-ce que critère de sélection yi dem ak président après euh, mu ni euh, euh, dina élire Macky Sall ak 65 pour cent est-ce que loolu du problème ci bu ñu jëmee ci 2024 mais yow man mun naa wax ne tey jii candidat yi bu ñu defee li ñu war a def ñi taxaw ni candidat la ñëpp kenn du si nekk candidat ah oui quoi mun naa kenn nekkagul candidat. oui kenn amagul dossier. bien sûr kenn yoon waxagul si say wax. <laughs> ku sa boo amee sa yéene. Mhm. am sa taxawaayu nekk candidat. Mhm. am na léegi li ñuy wax nii yëpp si loolu la ñuy wax. ñi ngi wax nii ba dënn yi jóg eh, ñuy tegante dënn kii dana nekk ak du ko nekk war na ko nekk ak mënu ko nekk mais eggaguñu foofu. d'accord nañu jublu si réew mi. Mhm. xool réew mi. xool li fi nekk depuis mbas bi fi am deux mille deux mille vingt xool guerre bi am Ukraine. Mhm. xool ni ko Thiaw di waxee situation euh, réew mi. seulement nag en deux mille vingt quatre doyen enjeu bi contexte bi dafay day dafa dafa doon lu rëy. contexte non c' est le même c' est à dire bi je si. Mhm. ni ñu taxawee nii. dara soppeeku wu si. Mhm. te dara mënu si soppeeku di ici deux mille vingt quatre. parce que lu ñu deful mille vingt di def ni jëm nañu trois mille te nit ñaa ngi dee xiif nit ñaa ngi dee ak mar amuñu courant amuñu ndox amuñu tali amuñu yoon kenn mënul jóg dem Dakar mhm. si sa coobare nga bëgg ni defar naa réew pendant vingt ans bu defar naa réew pendant dix ans bu defar naa réew pendant douze ans. dafa la bon ñu ko sëqal. bu boobaa dinañ xam lu ñuy def. très bien alors monsieur le maire euh, maa ngi koy wax léegi. des candidats mais tàng na ba léegi ba léegi waaw <laughs> des candidatures sont déclarées mais li ma wax rek doyen léegi mooy xamaguñu kan mooy bokk kenn wóorul ne di nga bokk en 2024 compte tenu de ce qui s'est passé euh, ci euh, euh, élection yu mujj surtout présidentielle yu ñu génn alors Khalifa Ababacar Sall moom déclaré wu na ne candidat la à l'élection présidentielle donte sax xam nañu ne ñu ngi doon wax dossier amnistie mook mook Karim est-ce que bu ñu tollee fii ñuy dem ci échéance bu mel ni 2024 kenn wóorul na dinga bokk ci boobu élection tension politique bi du gën a yokk ci démocratie bu mel ni Sénégal. dañoo posé question ah. boo xoolee Sénégal nga jàng ko démb ak tey ak fu mu jaar ci wàllu démocratie waruñu woon nekk en deux mille vingt trois di waxtaane yenn sujet ah. waroon nañ ko weesu bu yàgg doyen parti wax na ko même bu tey officiellement ñu nekkoon candidat yàlla rek a xam gis nañu ci réew mi ñu jege ku nekkoon candidat à l' présidentielle élection yu jot accès wul mu fàttu yàlla rek a xam. wallaay donc bu ñuy wax activité politique lu jaadu la lu yoon nangu la toute organisation ou parti politique a le droit de mener des activités politiques la campagne électorale loi moo ko organiser c'est une période. et kii def campagne électorale mooy le candidat. Mhm. accepté. bien sûr donc fi ñu ci activité politique la ñu nekk donc ku nekk mën nga ko tuddee neneen li tax ma ni man xalifa Sall yéene bi ma am muy ñun suñu candidat ci sart yu leer laa ko teg hmm. d'abord ci yoon ci yoonal gisuma lu ko mën a xaj naan ñi ngi naan am na lu lu lu lu tegu ci ndoddum hmm. mais ki may wax ni na fonk kàddoom moom ci boppam moo wax ci jëmmi boppam ba misaal ñaari mandat yi sax ak ñaari rakka ma jàpp ni bu dul bu dul mooy iliman mm. mais iliman diine dafa nii bu juumee nañ ko wax subhanallah absolument <laughs> te bëgguma askanu Sénégal àgg ak moom foofu naan ko subhanallah mm-hmm. yéene naa ko jàmm ndaw la te réewu Sénégal ma lay wax démb ak tey mm-hmm. moo tax ñun dañu wuute ak doxalin ñu bari Senghor fi ne woon président la république mm-hmm. def na lu mu mën def dem Abdou Diouf ñëw remplacer ko def la mu mën a def dem ab Abdoulaye Wade ñëw def la mu mën a def ak yeneen dem Macky Sall ñëw mu yéex mu gaaw day dem. moo tax ñun du ñu craché ci loolu. moo tax bu ñuy wax ay alternance yooyu ñun du ñu nekkuñu ci alternance. dañu nekk ci rupture. dañuy sukkandiku ci li ñu fi def lu baax ñu fesal ko wéyal ko li nga xam ne dafa dëng nu jubbanti ko teg ko ci yoon. ñëpp xam nañu réew mi fu mu toll ku ko wax ku ko waxul fi di xel yi dalul ci impasse la nekk mm. kenn xamul luy am suba kii war na bëree warut a bëree amul licence am na licence coow laa ngi foofu absolument kii nekk na li li déclaré ci candidat kenn xamul lu mu toll bari nañu loolu mais ci càppandaw càppandaw ga kan moo ci nekk candidat mm. c'est la grande question le conseil constitutionnel di jox mm. cutis pour nga nekk candidat yàlla rek a xam mais ñun comme que am na nañu yéene bu rafet te dañuy sukkandiku ci dëgg parce que loolu ñu wax de dafa dafa dafa nekk ci ndoddam mhm. ki nga xam ni moo jiite réew mi moo wax ñëpp dégg aussi joxe ay sa tegtal ne na ngeen ma xaatima loo xam ni mhm. dinaa ci sukkandiku mhm. pour ñu delloo suwaat leen ñu mën a nekk ci élection tout léegi nag mi ngi ci ci moom moom mooy xool ban bat dogal la jëm. Mm-hmm. et jàpp nañu loolu moo waxoon dana ko jëfee. très euh, euh, naka nga jàngatee ñi ñenn ñu wax ne euh, président de la république impasse bi mu nekk dafa bëgg a amnistier Karim ak Khalifa Ababacar Sall pour nag moo mën a faire face à d' autres candidats potentiels présidentiables yu mel ni Ousmane Sonko est ce que wax boobu yéen a ngi koy dégg ak jàngat bi ngeen ci mën a am si on sait que justement Ousmane Sonko ak Khalifa réeréewuñu. mosuñu réeroo Ousmane Sonko. maa nu koy nuyu au passage. leader Yewwi Askan Wi nekk aussi sama président organisation des maires des élus réels. donc ma am yéene bu mag ci moom. mu nekk ndaw bu am yéene ci réew. yal yàlla yàlla mottali yéene. maintenant man scientifique la. socialiste la. donc du ma wax ci ay mots de rue. contexte politique bu taxaw. lay mën a analyser naa li mais lu ñu wax ci mbedd bi bëri et charte yeew yi may na leen sax yéen ngeen ku ci nekk dem doon candidat mais yeew loolu la waxoon mhm. nañu ànd ci élection locale yi mhm. ànd ci élection député yi mhm. bu élection présidentielle jotee la Abdou Diouf waxoon nañ ko defee jàkki jàngoo ku mën a nodd nu bu ñu noddee ba noppi nag candidat yeew yi bi nga xam ni mooy dem deuxième tour te ëpp poñ ñëpp jàppale ko ñu dérouler le programme yooyu. Mhm. parce que dama jàpp ni ñun après deux mille vingt quatre. bu Khalifa Sall nekkee président la République incha allah yàlla na ko yàlla def. Mhm. mais mënul à lui seul déterminer yan jéego la ñuy def pour indiwaat jàmm ci réew mi pour soxliwaat réew mi pour dimbali nappkat bi baykat bi sàmmkat bi mu mën di liggéey di dund ñaxam. mais faw mu sukkandiku ci nawleem yi mu ànduloon ci nekk yeewi askan wi dana ci lawaale sax waa PDS yi nga xam ni ñoom la ñu àndaloon ci élection député yi mhm. laawaale ci askan yu Sénégal bi nekk ci biir réew mi ak bi nekk ci jaspora bi yéene bi ñu am nan lañ koy tëxëñe mhm. pour jëfe ko ngir sénégalais bu nekk mën ci gis sa bopp. très bien alors Moustapha ni ko ni ko monsieur le maire waxee est-ce que jotul euh, ñu defee ko noonu rek mooy jàkk jaa ngi noonu euh, ku mu ku mu neex na nodd bàyyi candidat yi nga xam ne bëgg nañu dem ci boobu la élection euh, ñu dem ca su ma nee bàyyi na xëy na conseil constitutionnel moom mooy moom mooy décider waaye ci politique la ñu nekk gisoon nañu encore une li xew en 2019 alors rax ci dolli ñu ngi wax am na si Karim ak xalifa mu nar a doon beneen reconfiguration politique bu ñu nar a gis fii ak 2024 est-ce que loolu seen euh, opposant bi nga xam ne moo leen gën a sonal taxul ngeen di def euh, euh, maanaam géopolitique yooyu muy Ousmane Sonko. damay ñëw ci loolu rek ci candidature bi yaakaar naa su si ma ñëwaat ci beneen yoon si déglu ci li monsieur le maire di wax xam nga actuellement bu ñu cible suñu candidat rek ne candidat bi valableul baaxul warul dem. te duñu wax yeneen kandidaa xam nga am na candidat yoo xam ne ñu ngi fi am na loo xam ne tegu na seen kaw ñu ne ñoom waruñu dem dañ leen a war a amnistier pour ñu mën a dem kenn waxul si ñoom am na fi ñoo xam ne ñu ngi am problème ak justice xamuñu fañ la ñuy mujjee seen problème ndax danañ dem wala duñ dem mais léegi bu ñu ñu ngi ci procédure waaw mais mais mais mais bàyyil ma bàyyil ma développé rek dinaa egg yooyu yëpp bu ñu tee rek mu neex ndax man damay déglu may waxtu mi damay bëgg ñu déglu ma uh-huh. xam nga euh, tey jii candidat boobu su dee ne moom lañ ciblé ne warul dem dama dama yaakaar ne bu ñu incité nit ñi pour ñu jóg pour taal dëkk bi wala xeex wala nangam dañoo nekk ci dëkk boo xam ne Cheikh ñun ñëpp dañoo war a yoon. tey yow am nga droit sa gis-gis ni nga gisee man wax naa la sànq ni ma gisee man ak yow bokkuñu gis-gis. comme bokkuñu gis-gis te dafa am lu fi nekk loo xam ne moo war a àtte nañu bàyyi bu yoon àtte ñun ñëpp ñu respecté li yoon wax. loolu mooy mooy tax dëkk bi mën a dem ci kanam. nit ñi jóg leen kaay leen ñu xeex pour lii mu am non c'est pas comme ça man gisewu ma noonu loolu nekkul loo xam ne luy defar te képp ku bëgg ñëw nag jiite réew aussi da war a fekk li ngay jiite nga fekk fa lu baax xam nga ñëw taal réew ba réew mi tàkk nga doog koo jot yàqati réew mi yëpp doog koo jot ba ko liggéey mm-hmm. kooku daf ñuy retard loolu daf ñuy delloo ci ginnaaw beneen bi may wax rek tuuti ma ñëw pour revenir à monsieur Thiaw li mu wax sànq ba wax ci ne li ñu waxoon defuñu si dara dëkk baa ngi nii jeunes yi liggéey ñu ndox amul courant amul mais monsieur Thiaw lépp mënul yem ñëw rek defandoo lépp lépp pare ñu ne lépp c'est euh, impact hmm. mënul nekk mais mais nag aussi y a des y a des avancées significatives hmm. tey fee président dem rek pour ñëw ci ndox mi mais KMS trois bi mi ngi foofu kër Mamar Sarr travaux yi foo tourné ci dëkk bi yaa ngi koy gis hmm. loolu yokkute la bu rëy ci ndox mi tey boo demee ci àll bi PUDC bi programme PUDC boobu boo demee ci àll bi tey mais ñun dañuy dox man fu nekk laay dem man suy jolof jolof jolof laa dëkk au fin fon de de de kii mais da ngay gis changement yi di nga gis route yi di nga gis tey foo xam ne amul ndox tey mi ngi am ndox nga gis foo xam ne amul woon courant tey courant ba egg na fi mi ngi am courant mm-hmm. tey loolu ay avancé la mais pour fépp amandoo courant fépp amandoo ndox tey ACS bi mu dem Euh, boo xoolee centrale boobu ñu def. Hmm. fële ca Malicounda monsieur le maire yaa euh, damay wax li mu def xam nga def ne deful dara. loo bilan mënoon nañu ko bañ. xam nga liy yàq waxtaan mooy. xam nga yéen seen waxtaan xam nga lan ko yàq. waaw déglu ma tuuti Mohamed da nga may déglu deful ma bilan damay tontu. xam nga dafa wax ne deful. waaw. mais il faut ma expliquer ko. xam nga yéen le problème am na loo def. xam nga le problème qui se pose. mooy xam nga yéen da ngeen dul nangu boo leen ñu invité si plateau. parce que nous sommes au pouvoir doo leen nangu bàyyi ñu wax. mais xam nga su ñuy wax di wax li président def da ngeen koy da ngeen di nangu toog déglu ko. Mhm. wax mais on n'attend pas parce que dañuy moom daf ko wax dama koy tontu. bu ma koy tontu nag aussi dafa laaj ñu déglu ko même ci emploi jeunes yi muy wax. mais emploi des jeunes li ci président def mais kenn mësu ko Mm-hmm. te aussi programme yi ngay wax yépp mais ñan ñoo koy liggéey mais ay nit ñoo koy liggéey Promoville bi tey Cheikh maire la. am na mm-hmm. ci dara Promoville bi tey ñaata jeune la formé tey te si gox-goxaan yi tey ñaata route pavé la fa Promoville nekk di def. ñaata éclairage public tey solaire ngay dem ci commune yi fekk fa tey Promoville def ko foofu. ba ci euh, projet bi tey nga xool tey canalisation yi ñuy defar. ñaata jeune ñoo ci liggéey mais route pavé yi ñu ciy def mu ànd ak projet bi ak éclairage public solaire bi projet bi àndal mais loolu yëpp dafa nekk loo xam ne tey lu ñuy làmb ak lu ñuy xool di ko gis. lu même projet bii ñu créé barki Dembo Ndiaye mais maire yi gis nañ léegi tali yi gis nga nu muy setee chaque jour yaa ngi gis équipe yi fa nekk di ko bale di ko toppatoo di ko defar mhm. loolu yëpp emploi des jeunes la nga ñëwaat ci xëyu ndaw yi la même chose donc président mi ngi def ay effort absolument effort yooyu nag il faut ñu reconnaître que même keneen bu ñëwee tamit aussi gis nga liggéey ba àdduna bi di tukki liggéey du jeex ku falu da ngay def ba fu nga yem keneen ñëw continuer nañu nañu nañu nangu loolu. mais bu ñu toogee ne ñu revenir sur les candidatures. mais sur les candidatures li ñu wax mënuñu bàyyi ku mu neex bopp bon voilà. ñu bañ mais dëkk bi xam nga dëkk yoon lañ nekk boo xam ne lépp dañ ko teg ci yoon lu nekk ñu ne ñu ne nii lay demee nii lay demee nii lay demee. Mhm. mënuñu bàyyi rek pëccëxoo di am kon ça veut dire que dëkk bi kon dëkk lan lay doon. Mhm. kon dëkk bu amul yoon la ñuy nekk dëkk bi dafa am yoon kenn ku nekk nag charte yi yoon wax. ne képp koo xam ne nekk nga ci charte yooyu pour nekk candidat mais kooku kenn du la téye da ngay nekk candidat mais boo ca nekkul tamit dañ lay téye pour doo doo doo bu la yoon tere ne la waroo nekk candidat waroo nekk candidat mais loolu jarul jarul xeex jarul xulu est-ce que du ci président de la République mu posé waat candidature am euh, ci 2024 ci bu ñu xamee ne ñenn ñu ngi wax ne sondage génn na wala moom sax boppam ci boppam defal na boppam sondage mais sondage yu nga xam te ni favorable ñu ko quand mais risque risque si lépp loo gis si àdduna dafa am risque lu amul risque fii émission bi ñu toog def sax am na risque risque am na fépp président ñun bu keesu suñu candidat mais day dem élection comme ni mu war a demee élection mm. mais aussi lu ci yàlla def ñu xam ne <laughs> lii la ci yàlla def <laughs> loolu rek la mais mënoo yow toog tey ba a xam ah. li nga xam ne mooy xew suba dañuy analyser rek waaw mën nañu def nag ay analyse yow li ngay analyser xëy na man ah. du bokk ak man nu may analyser d'accord waaw analyse yi moom mënul mënul yem yow sa analyse mën nga gis ne président peut-être bu demee yow gis nga ci leneen man man sama analyse. parce qu'on a président bu président moo mës a amul président élection bu fi ah. jàll gu wax ne président perte na ko. d'accord te élection yi bokkuñu tey boo jëlee élection locale na nga ko mën a analyser man di def politique. Hmm. na may analyser élection locale ak na may analyser élection législative présidentielle c'est pas la même chose. c'est mais baromètre ah. yi ci local beeg législative. non baromètre yooyu baromètre yooyu mënoo ko jël parce que bokkul tey baromètre local yi boo élection yi bokkul on est dañoo xeex suñu biir tojante ay bopp perte. ñu gagné leen waaw xam nañ ko. <laughs> ba ci législative yi aussi sur les investitures. Mhm. xeex yi am na on a perdu. mais bu dee élection présidentielle. Mhm. maanaam yow ak kii même bu dee ñoo nekk ay tendance ci biir APR ñun ñëpp ñoo bokk benn sac bu ñuy sotti de. bien ñu ah, lu ñu lu am solo c'est la même chose. alors monsieur Thiaw sur les candidatures d'ailleurs yow bëgg nañu xam euh, kan mooy seen candidat mais sur les candidatures souvent Sénégal da ciy am problème. Mhm. Euh, ci ñenn ñi bu ñu waree dem. Euh, samp seenug ndëdd jafe-jafe yi wax nañ ko fi léegi ñii ci wàllu yoon ñii xamuñu ndax dinañ bokkam déet ci démocratie bu mel ni Sénégal nga xam dañu waroon yombalal lépp rek ku mu neex mu bokk ci élection présidentielle. waaw de <clears throat> li ñuy wax rek mooy euh, suñu démocratie des na parce que dans une société wala dans une démocratie nit yi ku nu bëgg war na war fal. on doit pas mettre la justice à travers pour éliminer ay candidats. Mm. tey su ñu defee élection. ñëpp bokkuñu maanaam ci l' élection il est légal mais il est pas légitime te ñëpp xam légitimité moo gën légalité pour man sama gis-gis su dee doon wax démocratie loolu euh, première chose ñun suñu wàllu ñu ñun on n'a pas encore choisi si on va prendre quelqu'un si ni biir wala dañu ànd ak kenn loolu tànn ko parce que ñoo ngi si liggéey boo xam ne wàcc sur le terrain waxtaan ak ni yi proposer programme. mais géopolitique bi amul ku seen xel dem. candidat yi déclaré wu nañu ah. waaw ñun Ousmane Sonko Khalifa Sall. Bougane Gueye <laughs> euh, Malick Gakou. ñeneen ak ñeneen c'est-à-dire que nous sommes dans l'opposition. oui c'est sûr que ñu duñ jàppale APR moom c'est sûr. président Macky il est d'office. moom mooy <laughs> euh, d'office. Ah ah. ànduñu ak APR. donc donc tout sauf APR yéen. waaw waaw léegi ñun nag. soit dañuy tànn seen i biir. ok wala dañuy dem ak coalition loolu c'est trop tôt pour le dire. Absolument. mais le plus important mooy tontu rek euh, si nu mu wax te dellu si loolu trop. oui moo on est dans une situation tey Sénégal boo xam ne dañuy béy trois mois sur douze. da nekk situation boo xam ne ndox mi dafa yokk donc ndox mi bëri te kenn mënu si jot tamit amul sens tey bu ñu gisee Sénégal bu ñëwee catastrophe la soo ñëwee les marché publics on donne ça à des étrangers loolu pour man catastrophe la. nga ñëw de société publique ay étrange di ko jiite loolu du yoon loolu foog naa Sénégal rek la am. soo xoolee donc doo am benn colonisation boo xam ne gars da nga kaa jaamee une colonisation économique. tey président boobu su ñëwaatee delluwaat ñu peut-être ay dix pas en arrière ne dafa naa ay quelques tëli mais à quel prix foo dégg ñoo ngi wax ay surfacturation dañu waxante dëgg rek te état bi scandale après scandale après scandale te doo dégg ñu dàq kenn doo dégg ñu tëj kenn. loolu tey sénégalais doyal si am na ñoo xam ne jeunes yaa ngi jël ay gaal parce que ñoom danoo yaakaar ne Sénégal amuñu fi amuñu fi espoir soo gisee jën yi ànd ak opposition en majorité parce que dañoo découragé si parti au pouvoir ku jël gaal toog fa ay mois wala ay jour euh, ndax di risqué sa baqan parce que amul gisoo bunt fi Sénégal sa yaakaar moo tas loolu da nga kaa gis moo tax Sénégal doyal si APN APN ngir yàlla bàyyi leen ñu chaque jour ngeen dégg ñu dix neuf vingt cinq quarante cinq trente milliards ngay gis euh, ay meeting di may cinq mille francs dix mille francs alors milliards de dettes. waaw ñu jël ko dem fay ko ñuy wax ay dañuy ay meeting di loolu da nga see doyal. Mm-hmm. si APR da nga see doyal. Mm-hmm. ñun lu si des opposition bi. est-ce que problème mu la lool rek est du problème mu sunu politique yi de façon. waaw loolu laa loolu suñu problème mooy ñun problème lañu def te opposition ak parti sénégalais yi ban problème lañu def à chaque fois. on prend les mêmes de personnes on les met. Mm. loolu laa d'accordul man leen benn instant. ku mer génn rek ñu ngembaat la nga duggaat. voilà système bi après on. c'est-à-dire que du système les fonctionnaires yi détourné soo xoolaatee dañuy génn APR beneen président su ñoon ñu duggaat si nguur boobu. quand même. c'est les mêmes gens qui tournent en rond. oui. te loolu dafa war a doy. danoo war a jël ñoo xam ne xam na lu ñuy def. Mm-hmm. am nañu xam-xam bi am na nu jaar-jaar bi. xam na lu ñu joxe def seen àdduna ak seen liggéey lu ñu fi créé comme emploi maîtriser économie maîtriser mhm. ñu tànn ñoo ñu jiite réew mi. absolument mais jël benn politicien parce que laa dafa neex wala yàgg na <laughs> si langue politique bi moom la a dugal. Mhm. loolu moo ñu a tardé benn instant. loolu aussi c' est la respons c' que sénégalais yiy far également ñu fal plutôt ñooy xool seen ay profil mais tamit dañuy xool profil mais tamit. média yi am na si rôle parce que média yi quand il y a de bons profils war na leen jaay. mais absolument. mais dañuy xam ne daal benn bon profil. pour euh, romb rajo wala télé sa problème la. waaw yaa ngi sax naa la <laughs> pour ça ne rajo télé problème la. léegi euh. Euh, ce qui se passe. les débats là. pour mm-hmm. man il faut que ñu dugg si débat débat de fond. di wax ay ku nekk la mooy sa programme sa réalisation. Mhm. ñu xam di proposer en fait. di proposer bañ di sànni xeer rek. waaw bañ di sànni xeer. c'est important alors bëgg naa ñu jàll ci beneen pàcc euh, doyen euh, sur le rapport certainement de la Cour des comptes gis nañu évolution bu ci am rapport bu nga xam ne euh, partenaire financier bu mel ni FMI tax na ñun ñi en tout cas même bu dee de l'autre côté ñu ngi koy bañ ñu ñu jot ci muy muy la presse parce que c'est un partenaire bu nga xam ne dafa dugal xaalis bëri ci gestion fonds force Covid toll mooy euh, parquet dénk na ko euh, division des investigations criminelles muy police judiciaire pour ñu andi ci ay leeral topp ci euh, fukk ci ay dage ak benn ministre alors naka nga jàngate cette évolution. voilà xam nga nii. ngi nekk ci mbas. nekk ci tolof tolof nekk ci génne nañu xaalis ngir suqali askan bi xaalis boobu nit ñi jël ko dugal ko seen poos parce que boo liiree rapport bi. bu ñu la waxee li doon génnee kenn rek ku ñëw di génnee. pendant vingt neuf jours chaque jour cent million mais dafa naa même ki koy joxe sax war na ko laaj. quand même. muy benn bi ñu tegee xaalis bi la coow am. da ngay fàttaliku Mansour. bi mu taseeg euh, Babacar. Mhm. mu ne ko dinaa la porte plainte. boo ma ko boo ko waxatee <laughs> la parce que koo xamee ni pizza lay jaay. naan ko kaay jaay ceeb. Mhm. wala bàyyi ginaar bu nekk kolobaan. Mhm. naan ko kaay tabaxal ma. ñu ni la kii pizza lay jaay mënul jaay ceeb xanaa sa xarit la moo tax nga ni dama lay porte plainte. foofu la ñuy wone ni eh, rëq-rëq am na. beneen rëq-rëq bi mooy. logistique yaakaaroon nañ ne armée mun na ko waaye yow mi dëkk Jolof ma naka laa Jolof six ans vallée fossile Djimori avant muy nekk euh, président conseil booy nekk maire fale nekkoon chef de village boo jëlee lu war a dem Mbula nga ñëw kër Momar Sarr teg ko fa parce que jaar kër Momar Sarr dem Mbula jafe na nga ne waa ne waa Mbula ñëw jël si ko. Mm-hmm. waa Mbula ne la gisuñu. Mm-hmm. bu fekkee ni si loolu ñu sukkandiku. Mm-hmm. pour ni eh, sàcc nañu xaalis xëy na foofu tam war nañ ko seet. terewul nag wóor na ni boo xoolee li ñu bind xool li ñoom Guy Marius Sagna wax ak xool euh, li mu mujje ndax bi ñu defee force Covid terewul am na ñeenti gox Sénégal chaque fois xiif ak mar daf leen di rey. muy Matam muy Kaffrine muy Fatick bi Macky Sall dëkk ñoo gën a xiif ci Sénégal dañoo ndóol bi ñuy def euh, euh, Abdou Diouf. bi ñuy def Abdoulaye Wade. ba tey pour dire la lutte contre la malnutrition. oui DRSP. ñooñu dañoo mës a ndóol mhm. naka la ñu mën a ni jël nañu trois mille milliards mhm. dugal ko si biir askan bi def ko ceeb mhm. def ko diwlin mooy comme ñi nekkoon Kër Momar Sarr parce que boo jógee Kër Momar Sarr dem bu di saaxo daa gis nit ñu dee ak mar te ñu ngi si dex loolu am na loolu bu fekkee ni am na nag ñu ni jël nañu xaalis jamono ji ñu toll tey jii. xëy na bu doon jamono socialiste yi. Mhm. ñu am moom nu ko fexee waaye tey ji dafa fekk. mais fi seen fi tàng na ah. c'est la troisième fois je vous le ñëw di appart ba pare ñu dugal la si fourneau. non non si tàng na ah. dégg nañ plaidoyer bi. waaw ah. yaa ah. bu fekkee ni def nañu loolu yëpp. Mhm. nit ñi di dee xiif. ñun xaalis bi foo ko jëlee. d'accord ak foo ko dugal. même bu dee ministre des finances wax na ne sur mille milliards six milliards rek moo ci am ay rëq-rëq te six milliards yooyu. mel na ni euh, lu ñuy xaw a donte sax ñoom nee nañu. minimiser bu ma dëkkoon Mbula. Mhm. ñu jël ceeb bi ñëw teg ko kër Momar Sarr si yi ni suuf si dafa bare mënuñu dem armée bi ñu jëloon ñun bi ñuy defar vallée fossile mhm. armée les 72 les 72 premiers kilomètres. Mhm. armée rek moo ko mënoon ba génie militaire. on a pris militaire pour mu diriger affaire yi. ñu jël ceeb bu jëm Mbula. wala bu jëm Bëlëxe. ñu ni fii ngeen di jaar. ba mu egg dundoo oto mënu fa jaar. d'accord léegi waa Mbulaxe waa dundoo ji. Mhm. ak Mbula. Mhm. kaa leen kër euh, kër Momar Sarr jël si seen kii bu la naxee ñu ne gisuñu. bien sûr loolu la. donc problème la alors monsieur le maire euh, sur le rapport de la cour des comptes euh, ñu gis ne ay magistrats ñoom ñoo composé boobu les ko def liggéey bu mucc ayib également publier ko ñenn ñi di jeter le discrédit ci yooyu les magistrats ci liggéey bu mucc ayib. bi ñu def ndax dañu leen épingler rek euh, mais aujourd'hui est-ce que fi mu toll rapport boobule euh, ñu jébbal ko DIC pour ay enquête préliminaire ndax dal na xel ci wax ne lépp dina leer xam li doon wax rek ñi am yéene ci réew mi dañu war am taxawaay ak doxalin moo xam dafay mucc ay mm. lu dal ni mbas mi fi amoon lëmbale àdduna bi député feebar na ci dénn ci maire feebar na ci dénn ci imam feebar na ci dénn ci ndongo daaro feebar na ci dénn ci mhm. mbooleem lii nekk société sénégalaise mhm. ak bitim réew ku ci nekk feebar nga ci dénn ci mhm. am na ay président yoo xam ne sax mbas mu dal leen yàlla def na ñu mucc quand même feebar bi lëmbale réew ñu tëj jumaa yi tëj jàkke yi tëj jàngu bi kenn dematul kenn dikkatul mbokk gi sax jokkale bi amatul noonu diggante jëkkër ak jabar ñuy dawante doom di daw baayam bàyyi du moytu doom jàngoro ju ma joon lëm Sénégal lëmbale àdduna bi nga xam ni même xarnu bii bi di ñëw daañ ci wax ndax du mës a fay ni nañ leen booloo njiitu réew mi woo ñi nga xam ni am nañu kàddu ci réew mi laaj leen seen xalaat ñu joxe seen xalaat ñu dajale loolu yëpp ñu ni nañu jël koppar goo xam ne dañ koy jagleel ñi nga xam ni daañu xettali doomu aadama yi ba mbas mi bañ leen dal wala bu leen dalee ñu mën leen indil ay jumtukaay yoo xam daañ ci jëli wér marché yi tëj école yi tëj lépp tëj ba loolu amee jenn jëmm moo jóg ngir darajaal jëmm jooju sax waroon a tax xaraam na ci nit mu ciy def ci alal jool nag fi noonu sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke yàlla na fi yàgg loolu tëbër moo jëkk jóg jël alalam def ko ci mbir mi deux cent millions deux ñépp xam nga di ko rafetlu ñu nekk Touba di si di sikkar di wàcce alxuraan di jàng xasida di def lépp lu ñu war a def pour sauver doomu aadama nu jël alal jooju am ñu ñu ko denk suñu ay njiitu réew amuñu lenn luñ ciy xalaat lu dul di ko détourné dafa ñaaw mm. ñaaw googu mu ñaaw moo waroon tax waruñu woon sax toog ba nit ñi di yóox di ko wax pour ñu doxal yoon mais il a fallu que nit ñi ñëpp jóg yóox ñii nga xam ne ñoo jàppale réew mi aussi nañu leeral mbir mi ñu soog a jóg di ko leeral maa ngi koy rafetlu naam am na retard. Hmm. tax ma ni noonu ñu ko waxee woon ba ñu jóg ba di ci def tey jii ay jéego magistrat yooyu nañu wéyal seen liggéey ndax am na ñoo xam ni. bañ leen di woo bañ ca tolloo waxoon nañu ko de mm. du ñu xamoon naa ko magum waxoon naa ko la bari na ay kilifa yoo xam ne attiré woon nañu attention ba nit ñu naan leen lu ngeen di attiré attention ci ñëpp sikkim yëpp lakkandoo nañ ci sóob rek dem mais dafa xaram ci koo xam ne danga gëm yàlla mbaa nga gëm jàngu bi mm. nga ti jël 15 di def nag suñu noonu mm. ñoo xam ni jotewuñu dara ak ceeb jotewuñ dara ak produit yi nga xam ne moom la ñu joxe. ñu leen di wax defal lii defal lii. di génne koppar bu takku ci benn bis. xoolal ma pexe yooyu rek. Hmm. mais criminel mënul weesu loolu. sa hmm. c' est un crime contre l'humanité. est ce que le président de la république ne devrait pas quand bu mbir mi amee rek moom mu jël responsabilité am ci ñi mu dal euh, donte ñu leen dañ leen épingler rek jox leen ay recommandation ba mbir mi di leer mu wàccee leen seen ndombal tànk comme euh, ni ko euh, société civile bi euh, laajee à travers suñuy milliards du rees xam nga bi mbir mi di am ministère de la santé ñun ñëpp bis nekk dañ daan gaaw dem ci suñu télé yeeg rajo yi. Mm. di déglu nombre de cas nombre de décès. bu ma juumalee presque mille neuf cent et quelques décès am na mm. président la république ay yoonu yoon mu jànkantoog presse bi. di leen wax tolluwaay réew mi ak narka la ñu war mobiliser armée bi ni ñi nekk ci couvre-feu mais boobu moom bu ma gisee lii am na wala ñu ngi koy wax rek ci kilifa dangay joxe ay tegtal ni lii dañ ma ko toppal ba mu leer mm-hmm. ndax li ma ciy dégg dalul xel képp ku ci def na mu ko waxe woon mm-hmm. du ma protéger kenn yaa ngi fàttali ko mooma naan naka naka ngeen ko daan waxee sax seen bàkku bi Euh, la la la la patrie avant le parti. la patrie avant le parti. oui. <laughs> OFNAC pour ñun la. CREI CREI pour pour ñu fi jugee. xam nga ñu ngi déglu Cour des comptes mais OFNAC ba léegi kenn déggul seen bi. absolument. ñu ngi ni tekk mm-hmm. ñoom it dañu génne wax li ñu mm-hmm. maa ngi seetaan keroog seen télé bi. Mm-hmm. seen euh, revue de presse bi. ñuy waxaat ni sax am na beneen bomb bu gën a rëy buy ñëw. buy ñëw ci rapport yi. ci rapport yi donc réew mu mel noonu. naka lay mën a jëm ci kanam. Hmm. d'accord bu fukki di gas fukki di suul ay janax yoo xam ni pax ya ñu am kenn xamul lu mu doon tu léegi lañ fay dugal te boo doon saytoo lañu ñu ci alal nit sax dafa war a jomb alal yu mel ni hmm. génn nit ñu ne la am na fukki immeuble yi kam xam na lii ci alal mais looy doy alal jooju hmm. te ñu ci bari di def politique wala leen dafay naa ne dañu gëmul bisu am na de boo jëlee ci askan wi te lew la bisu penc da nga wax fiftin bu ma foog jëloo. donc la yow. man sama gars yi àgg gu ñu yomal xiyam mais sama xel tiit na ci. <laughs> mi ngi noonu alors. bu ma tasee ñoom yomal xiyam daal. <laughs> monsieur le maire ma ne la monsieur kii damay daagu wuti àjjana ñoom daañu leen téye ci porte bi ma ci kenn téye naan ma yóbbaale. mi ngi noonu <laughs> alors sur le rapport de la cour des comptes euh, euh, euh, monsieur le maire Moustapha Mbengue gis nañu ñu coow li ci juba et puis voilà rapport cour des moo génn mais on réclame même d' autres yi nga xam ne génn na. Euh, te amuñu ci wala dégguñu ci dara rapport nag dafa am solo lool ndax dafay xayma ak euh, saytu euh, liggéey bu nit def ci benn bërëb te sénégalais yépp teg ko ci bërëb boobu wala mu yor alalu Sénégal yépp alors naka nga jàngatee tout d'abord yow situation bi ñuy dund ak rapport Cour des comptes yi nga xam ne dafa épinglé ñi nga xam ne dañoo féete ci seen bor. comme niñ ko waxee tey jii dañoo épinglé ay ministre si liñ doon gérer xaalis bi nga xam ne moo dugg ci côté président bi nañu enquête képp koo xam ne comme ni ko Cheikh waxee jàpp nañ la nga jël alalu askan bi nañ la teg li nga xam ne yoon loolu la war a teg loolu mooy yoon parce que xaalisu askan bi ñu génnee ko ci feebar mbas bu metti nit jël ko lekk ko kooku ñu ko bàyyi. borom gerte caaf bi cotisé kii jaay ngooñ cotisé kooku dañ ko war a dañ ko war a topp. Mhm. léegi nag li ci biir xëy na euh, enquêteurs yi ñoom dinañ ñu ko wax ñun ñu xam ko mhm. ñun foofu rek lañ mën a yem ci rapport bi li nga xam ne moom lañ liir moom lañ gis mhm. mais comme ñu ngi woote dañuy bàyyi nag ba ci kanam ba ñu xam. est-ce que loolu ñu wax ci biir loolu la wala lépp. alors ndaxte am na ci bëri loo xam ne ci ci Covid 19 bi man j'étais maire. Hmm. man euh, Cheikh mi tamit. gars yi sax nee nañ maire yi war nañ leen war leen saytu ñoom it de. waaw bien sûr après après après nii gars yi nee nañ maire yi tamit war nañ leen saytu ci gestion. Covid bien bien hmm. sûr ci loolu laay ñëw rek. parce que xam nga maire yi moom def ku si nekk voté woon nga benn. montant pour jàppale parce que ñun ñëpp xamoon nañ ne li état bi daan joxe. Mhm. commune yi doy mais sonnoon ngeen trop aussi. ça il faut le il faut le trop ndax Kër Massar man dafa peuplé man mhm. Covid bi sonnoon naa ci trop. Mhm. daan jël ay malaat sax di leen yóbbu. ci ay hôtel wala di leen yóbbu feneen feneen di ci ànd ak sous-préfet et tout surtout bi affaire day ba métti parce que nit ñi mën nañ daw nit pour bañ ko leen wàll mais yow maire bi ñu fal yow mënoo daw. bien sûr waaw il faut nga ñëw ci biir yàlla nag moo lay dimbalee. Mm. moo comme ni ko Cheikh waxee am na ci ñu si maire yu si gaañu. yàlla na leen yàlla xare ajana. waaw mais nit ñu kenn ku si nekk yaa ngi doon def effort pour bëgg mbas mi. mu mu jeex senegal mm. alors ni ni ni ni ni Cheikh wax président dafa waxoon ne du protéger kenn moo tax sax ba mu ñëwee mu teg fi off nag ñëpp rafetlu ko ah. parce que euh, wàllu bonne gouvernance ak transparence ko yittaloon. Mm. daaj yeeg ministre yi ñuy épinglé ca cëggal guy gi mooy bu ñu defee daañu leen topp te du am euh, lu ñu duppee euh, euh, impunité. oui bien sûr dinañ comme joxe nañu instruction am nañ yaakaar ne dinañ appliquer lépp ba ci biir man loolu laa jàpp. Mm-hmm. loolu laa am yaakaar. Mm-hmm. loolu laa xalaat. xam nga sekk tamit aussi yu mel nii su amee politiciens yi. Mhm. ñoom ñooy politique moo tax ñoom ñoo gën a tey le ministre bu dee ministre bi tey day politique. Mhm. comme damay joxe benn exemple sur l' affaire de Prodac par exemple. oui tey su amee problème ministre bi la ñuy wax. Mhm. pourtant ñi nga xam ne tey ñooy daaj yeeg yooyu. c' est agent de l' administration. nekk foofu peut être c' est des gens yoo xam ne sax defuñu politique. le le DG peut être c' le le président moo ko nommé. par un décret. muy muy def ay banda xaalis di génn et mais ministre mais bu problème amee toujours le ministre. ah mais mais ministre yi nag mooy kilifa yi daaj. lépp lu ñu def moom ñoom ñoom. lañ koy wax parce que c'est lui le politique. parce que am na ñuy wax sax ne daaj yi da leen bëgg a suruxal bàyyi ministre yi. non du question de du ah, question de suruxal mais moo tax enquête bi nag dafa war a dem jusqu'au tout à fait on est d'accord képp koo xam ne amul euh, DG nga amul ministre nga amul agent nga. ñëpp la ñu war a yamale képp koo xam ne def na si lu mu ci war a def. Mhm. yoon li mu ko war a teg daf ko war a teg. d' accord alors on revient sur Amidou laataa ñuy def suñu dernier tour de table Amidou gis nañu rapport yi ah. surtout bu Cour des comptes bi dafa ñëw euh, fekk si rapport euh, Transparency International bi nga xam ne mi ngi wane ne Sénégal dafa stagné ci 46e position jëm ci wàllu corruption maanaam ger gi mhm. moom mu ngi fi ni xuus alors c' est quoi le problème selon vous ak gis-gis bi par rapport ak rapport bi nga xam ne génne nañu ko rapport d' audit Cour des nga xam dafa épinglé. réglé ay euh, dage ak euh, ministre ci euh, gestion bu bon bu ñu def ci wàllu fonds force Covid 19. voilà foog naa je vais je vais me répéter peu. Mhm. mooy ñu fi nekk foog naa dañ leen war dàq. Mhm. mais tamit lu ma metti. ak lu metti sénégalais mooy lan. Mhm. donc noo confiné. <laughs> mais toog leen seen kër. cotiser leen bu ñuy cotiser. nakate ñoom ñoo ngi pàccu loolu moo nu metti ñun ñëpp. c'est le constat. moo tax tey société civile. Mm-hmm. su lancer concept. Mm-hmm. suñu milliard du res. ñun tamit ñu ne dinañ lancer concept bu tudd goxal seeni milliard. Mm-hmm. dina def euh, tournée nationale. dina def ay manifestations pour loolu. parce que dafa yomb depuis foog na 2012 jusqu'à présent il y a tout le temps des scandales. Prodac fii. temps yi wax na 45 milliards yi mujjul fenn muy environnement yi. Mhm. léegi ñu ñëwaat fële Dantec. te ñu ñëwaat euh, fond Covid. Mm. te da nga koy benn bennal benn bennal. Mm-hmm. créer benn affaire ba ñëpp fàtte ko. Mm. mais loolu kenn du ko fàtte. Mm-hmm. mu ñëwee suñu problème. Mm-hmm. gisaguñu ñu tëjagum kenn si lu amagum. te loolu c'est pas normal. est-ce que processus bi daal na xel ñu dénk ko police judiciaire. ci mel ni processus yi seen xel dafa mm, tee comme seen Sénégalais yëpp. parce que gis nga Mame Mbaye Niang bu mu porté plainte nu mu gaawee. bu mhm. nu convoqué. Ousmane Sonko Ousmane Sonko. na ko gaawal noonu. Mhm. ak fond Covid bi. Mhm. da ngay toog trois mois ñu ne benn rapport trois mois la woo noonu kii trois mois trois mois ba est-ce que sax dina am dara. nag nañu seetlu ci administration bi chaque fois quand c'est des choses contre l'opposition l'appareil judiciaire day gaaw quand c'est des chose ñoo xam ne ñoom ñoo ko def dañuy nelawloo nelawloo ba après ñu suul ko fàtte ko. loolu lañ si gis. mi ngi noonu mu doon am solo alors on va faire un dernier tour de table doyen ñu ñu ñu ñu tàmbali ci yow waxtu bi jeex na alors deux ans. aujourd'hui Sénégal mi ngi ci tension politique bu bu doy ay dossiers yu bari euh, Ousmane Sonko en tout cas poli euh, politique bi complot la wala du complot alors mu nekk tension bu nga xam te ñu ngi ko nekk di dund alors quelle solution pour une sortie de crise am na ñenn ci pàcc société civile yu wax ne war nañu mën a amal un dialogue franc et sincère ngir deux ans yi ñu dund ci ay tension mu mën a apaiser wu su ko defee ñu waxtaanee réew mi laataa ñuy tàbbi ci échéance bi ñu jëm en 2024. tamit mhm. si mhm. yokk ci arrestation yi aussi. fu nekk ñu jàpp. parce que yooyu yëpp si si la bokk. bien sûr. dafay fekk ñu jox ku nekk axam euh, ak yelleefam. parce que ku ni man maa dem dugg bërëb waxal ko boppam ñi mu foofu nekkal am ku si génn porté ko plainte kooku mbiru yàlla si boppam nee na boo tooñee man bu ma la tooñee yow moom duma ma baal tànk yow ma diggante nit ak nit mu lool ku wax ni diw rapport bii Eh, taxal na ko ñu la ana rapport bi nga ni dama juum parce que tamit bu ñu fekkee ni dañuy eh, toog waxtaan day fekk li weesu ñun li ñu daal wax boog ñun li weesu dootuma ko defaat waaye boo defee ba pare ni maa def maa wax waaye complot la génn leen ñi lekk nañu xaalis dem leen gas seen kër loolu du mën a tax euh, waxtaan neex mm-hmm. muy benn beneen bi mooy boo demee ba tollu diggante ba jax parce que euh, ren yi ni ko euh, ni ko xale yi waxee mm-hmm. rakk toppatul mag doom toppatul bàyyi mm-hmm. mais loolu li ko waral lu sore la du mag yi du Diouf la ñu commencé les socialistes la mes amis avec les plans d'ajustement ñooñu ndóol gi ñu am tey bu taree tey lu bare fa la jóge mm-hmm. bu fekkee dañu bëgg toog waxtaan ñu ne na si kilifa yu wax kilifa diine mm-hmm. kilifa aada bu kilifa yooyu di waree wax mm-hmm. dañuy toog teg déglu waaye doo leen jiital ba pare di naan maa nga kolobaan maa nga mbàkke maa nga wuro soogi maa nga uh, New York. <laughs> loolu daal moo mën a nekk. muy benn. Mhm. beneen bi mooy lii ñu nekk nii te yoon am si yoon yoon mun na ko doxal doxal boo xam ne mooy doxalu yoon. Mm. te du ñu xawi sutura kenn. d'accord bu ñu respecté eh, ak. ak yelleef yi. Mhm. ku nekk ba euh, bañ a euh, tindi sa malaanum sutura. Mm-hmm. ni ko yoon defee. defaraam mun nañ koo nangu. nuñ koy nangoo nag mm-hmm. mooy dafa fekk euh, yàlla dafa def ni dafa am ku jiitu. Mm-hmm. kàddu gu jiitu mooy dañu nekk ci démocratie. boo nekkee ci démocratie dangay ngay nangu ni caw mi. mbeng mi monsieur le maire mi. lu leen neex la ñuy tëddee. du ñu tëddee nu ma neex. waaye boo nee ne caw. bu xoolul fi ma xool ma rendi ko. wala mbeng mi bu xoolul fi ma xool ma <laughs> rendi ko <laughs> <laughs> waxtaan du fa mën a am alors waxtu bi mooy waaye jeex mais monsieur le maire bëgg nañu la interpeller sur ça euh, deux ans durant réew mi nekk ci tension ay dossiers yu dul jeex ñi jàpp ne ay complot politique la ay arrestation nit ñu ñuy jàpp également loolu est-ce que mën na yombal dal am quand même ci ci réew mu mel ni Sénégal nga xam ne soxla nañu ko jamono ji. pas sénégalaise pas africaine même du monde souvent événement yu mel ni day am. Mm. mais à chaque fois dañuy dem ci concertation. tout à fait pour trouver des sorties. absolument de crise. Mm-hmm. yaa ngi fàttaliku au temps du. moi je suis militant socialiste. Mm-hmm. mais je suis militant de la Ligue démocratique. Mm-hmm. je suis un socialiste. Abdoulaye Bathily l'éminent Abdoulaye Bathily. de grand serviteur. alors amoon na fi ay jamono tuyaay mais gis ngeen même ci 2019 bi ñu dem président lancé appel pour inviter au dialogue et le groupe du dialogue politique amoon na ay propositions yu mu defoon mais waxtaan woowu fan la mujjee recommandation yi ñu joxoon nan lañ ko jëfee donc tey jii bu ñu dëgmalee élection ñuy génn dossier yu mel ni du lu bees en Afrique mm-hmm. gis nañ ko ci réew yi ñuy wër bëgguma tudd seen nit bëgguma leen tudd mais même ci Sénégal à chaque fois day am ñu ngi fàttaliku jamono Ablaye Wade à chaque fois élection am mais Abdou Diouf loo ko mënoon critiquer critiquer daan na bàyyi nit ñi ak opposants yi ñu dem à des élections gis nañ ko au temps de Abdou Ablaye avec Idrissa malgré les a participé à l'élection présidentielle alors aujourd'hui c'est pourquoi yenn yi ma gis daf may jaaxal dama di mais président bi dafa mel ni amul jaar certes il est jeune mais am na jaar-jaar am na cursus politique. Mm-hmm. et je me rappelle man Benno Bokk Yaakaar laa bokkoon na. Mm-hmm. Ligue démocratique. bi ñuy def campagne yu député yi. def Moustapha Diakhaté tête de liste mais argument yi ñu doon joxe loolu la. d'accord kii li ñu ko teg bu buñ ko falee du ko tegaat nit. Mm-hmm. te loolu laa gëmul. absolument moo tax réew mi bu fekkee dañu bëgg dem ci ay élections deux mille vingt quatre il faut que ñu dal. d'accord. il faut que ñu ubbi ay cadre de concertation d'échange de consultation pour arriver à des convergences fortes c'est important c'est pourquoi nun candidat bi ñu am c'est le candidat de la réconciliation et de l'unité nationale muy Khalifa Ababacar c'est le candidat de la paix et de la stabilité quand même El Hadj Khalifa Ababacar Sall président de la République loolu dafa leer alors euh, ci dama dama ciy ñëw rapidement rek rapidement dama ciy ñëw def ba mu apaiser wu waaye nee nañ nit ñi loolu mënul nekk ndax arrestation yi. ñu ngi jàpp nit ñi vraiment ay dossiers ñuy soulever à quelques mois de l' élection waaw foofu laa bëggoon euh, leeral très rapidement waaw bëggoon mm-hmm. euh, xam nga nit bu dee da nga bëgg yor réew. di laaj réew ne da nga bëgg nekk président de la république. Mm-hmm. dafa am jikko yoo xam ne yow da ko war a yore d' abord ba pare. mais mënoo yor yenn jikko yi ba pare ñëw taxaw ne da ngay laaj réew. Mm-hmm. xam nga tey bu ñuy wax kompolo. sama góor gi wax na ko léegi. dafa am milieu yoo xam ne sax yow bu dee da nga war a nekk prés bëgg a nekk président de la république sa tànk sax waru foo di tege war nga ko jomb di fa teg sa tànk surtout nag bi nga xamee ne yow ba ngay dem sa jabar yëgu la sa chauffeur yëgu la sa doom yëgu la mhm. sa garde corps yëgu la yow yaa demal sa bopp ba egg dugg fenn mhm. fa nga dugg problème am fa ñu yóbbu la ci yoon mhm. nga ne dañ ma kompaloo kat noo la kompaloo mm-hmm. bu dee ne ñun dañuy politique te lépp loo xam ne dañ ko am suñu diggante ak yoon mm-hmm. ñu ñëw euh, jiiñ ko état bi ne dañ ma kompaloo mm-hmm. indi coow indi xeex mais ci ban dëkk la ñu nekk. d'accord solution bi pour waxtaan. nit ñi nga xam ne tey dañoo nekk ci moom ñu nekk ci wëjë politique bi tey. di wax yoon di wax yoon di wax yoon. mais ñoom ci loolu la war a wax. d'accord mais boo xoolee ñoom seeni wax yépp li ñuy wax dangay xam ne ñii lañuy wax sax ñoom. ñun ñi ñuy wax sax boo moytuwul ñun ñoo leen tane parce que ñoom doo dégg mukk ñu wax ci mbir moomu te ñoom mbir moomu dañ cee war a wax wax ak nit ki dëgg mm-hmm. tey jii ñu ngi wax suñuy suñu candidat dafa dafa xaw a taq suuf wala nangam <laughs> ñoom dañoo war a wut candidat wut plan B bi ñuy ko war a wut <laughs> parce que ñoom dañoo am problème bi ñu am uh-huh. du problème boo xam ne dañ ko am ak euh, président de la République la état mais dañ ko am ak justice ndax diggante nit ak nit la beneen bi si bi bi ci deuxième problème uh-huh. da ngaa wax nit mm-hmm. Euh, comme ni ko caw waxee sànq rek. xam nga nit ki booy wax. Mhm. da ngay génn ay preuve teg ko. Mhm. waaye boo ne nit ñi nii nii lañ mel naa lañ mel ne lañ mel. te tegoo tegoo preuve bu nu ñi gis. du sotti loolu du sotti. loolu nag dafa bëri si euh, Cheikh wax na ko sànq ne. boo xoolee pouvoir bi li ñu yor ci ay milliards nit ñoo xam ne li ñuy yor c'est pas mais l'opposition là est très riche plus riche que le pouvoir yéen tamit seen xaalis yooyu fan ngeen koy jëlee da ngay gis ay opposants yoo xam ne li ñuy yoree pouvoir bi yoru ko merci Moustapha waxtu bi <laughs> waxtu bi moo jeex on termine avec euh, Cheikh pour une minute ah Cheikh pour une minute après ñu tëj euh, solution pour une de crise ama ah man lu may wax mooy mhm. Sénégal dëkk stabilité la dëkk jàmm ñu fitna te gis nga yenn problème su commencé am man damaa ragal ne armée day ñëw nangu pouvoir perte. te ñaanu yàlla yegg. ñoo yàlla egg foofu ñu wax Sénégal dafa am ay coup d'état wala ay dakaa jël. ñu nu ñu ñaan mooy nañu bàyyi ñëpp dem. élection mu nekk élection bu légitime. Mhm. que le meilleur gagne loolu lañ mais Sénégal nag suñuy tànn. Mhm. tànn ak le meilleur profil moytu les mêmes profils. Mhm. time important <laughs> merci beaucoup euh, président Hamidou Thiaw ñuy fàttali ne yow président bu MPR en marche pour la renaissance ñu di la gërëm ci euh, wuy si bi ci bile émission gërëm également Moustapha Meng euh, nekkoon fi maire bu Kër Massar waaye itam di euh, au conseil des collectivités territoriales bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar noonu la ñuy gërëmee également le doyen Pathé Mbodj journaliste analyste politique waaye itam di sociologue gërëm également le maire Cheikh Gueye maire bu Dieuppeul Derklé waaye itam membre bu taxaw taxawu Sénégal ñu di leen gërëm bu baax a baax ci wuy bi ak ni ngeen àndeek ñun ci waxtaan bi soxal actualité réew mi ak tolluwaay wi mbokk yi mu nekkoon seen émission 90 minutes chrono euh, dinañ fi dikkaat euh, présenter leen ko incha allah ci beneen ayu bés lu may loolu woy leen di topp programme KSM TV la chaîne leader yaa ngeen jëf bienvenue chez vous. Gaston Production le Don King de l'arène le sauveur de la lutte sénégalaise dikkaat na ak ñun ci beneen affiche affiche bu nar doy waar diggante Reug Reug ak Sa Thiès combat de l'enfer combat de l'année muy am ce dimanche 5 mars 2023 ci mars la ñu wax deex est-ce que combat bi duñ ko bëree planète mars ndax coow li ci nekk combat bi le combat de tous les dangers diggante Sa Thiès ak Reug Reug ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci